ما توجه المكاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عنه رضيت هو عني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لي غيري جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغيري جهتي لعين يسوقه لخيرنا المعين أداتي من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي توفيق هادنا قاد الإلهام قد بيالي ما لو أنبيام بدت لي اليوم برب الغيب أعازني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قثبت سكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير سكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي بوكي طالبي نيغي لين دي في تي كير شيخ الخديم غي نيك تي جمعه جي تي تيوايو سيرن شيخ بصير مباكي ابن سرير عبد الخادر ميغا خامني مو كادو خليفه جنرال دي مولد الشيخ محمود منتخب مباكي خام نغي ني لي دالي ديبير جي نيو ген امنا نجانغوم القران اك يو خامني شيخ محمود منتخب جوخي وون لولينك bu ñu ko wéyalee ba dibéer ji dellu si altine ja mu jàpp ko muy bisub tëj bi ci wàllu njàngum xasida ak lépp lu ci war loolu nag incha allah ñu bàyyi sëriñ Cheikh Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khader mu leeral ndigal li ak ni ko sëriñ bi diglee ba ñu mën cee taxaw bu baax ñun ñëpp. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin وعلى آله وصحبه زوي الردوان والتمكين بوكو جولي ديب بوكو تالبي موري ديب ني يكر سنو كادو تشندقل الشيخ مهود منتخى حفظه الله تعالى ورحاه وأيده وزاد من نصره دينيال مو ياغ في لول تاندغير با نال اك سومبيوري ييغي خامني ñu ngi koy taxawee ci lislaam ji di ko taxawee ci biir yoonu murit ci fànn yëpp nag yal na suñu borom dolli ko kàttan ak ko fan ba lépp mu àggale ko ni mu ko bëggee ndax jëmmule joo xam ne kat ñi li bëreetu ci kaw suuf la baqiyatu salaf la ndax koo xam ne foo ko séenee saxal dellu ci sa borom foo ko séenee sa pëstéef dolli ko sa digg ak Serigne Touba mu wóor leen daray àdduna néew ci moom Serigne Touba rek ne ci moom kooku ku am war nga koo sakkaan ko ñaanal te ci ànd ak dalu xelit ngir ñaan suñu boroom moom mi nga xam ne mooy def mooy dindi yàlla na ko fi gën a yàggal ndax wax naa ko barki démb rek ndax ku xam fi mu toll danaa ci nett lu gàtt balaa wax jee lim ma yónnee ci agsi agsi ndax taxawaay taxawaayu suñ bi sax umbur kenn ndax waxtu ne ngeen ko dégg lu xew bala cee taalibe jëf moo ci njëkk bala caa nguur a jëf moo ci njëkk loolu nag yërmandeem ci nit ñi ak taxawaay mook ko may wolo ci maahel xuma mi ja Sëriñ Tuubaa waxoon ci rasulullahi suñ borom def na ko ci moom xar kanam la boo xam boo gisee jëmm rek saxal tàggul ñaqare bu yàggut bi ñuy gàmm bi ñu gàmmoo dafa am ay pàkk lu ma junni pàkk yoo xam ne ak Cheikh Sidi Mokhtar yàlla suñu borom doole ay leeram moo ko yëkkati woon jox ko ko tegu fi sax ñetti weer walla ñeent bàyyi ko fi pàkk yi mu séddale ko ci biir séddale ga nag ñu dagg fa kër akum penc xam ngeen ne sëñ bi ñu ko xam xam nañ ne mës a yëkkati alalam di ko def ci tabax tabax boo gis këram gëm dëkk rek ay nit a dajaloo def ko fa ay taalibeem daje miire kër ga defar ko ba mu àgg dafa tabax bu mucc ayib ngir bëgg sëñ bi dafa nopp def ko këram waaye sëñ bi ci pëstéef bu réy ba mu ne kër gi daal ni mu ko gisee eh, ëppale na ko boppam mu woo sëriñ Isaaxam rakkam ak sëriñ Moussa koo man mii koo sëriñ ahmadou badiou cheikh mamadou fadil ne jëlaat na kër ga def ko àddee Sëriñ Tuubaa ci biir université bi kon sëriñ bi taxawaayam kenn xamut fu mu àgg wax naa ko barki démb weer wi weesu boo xoolal li mu def ci compte Sëriñ Tuubaa bi dana mat ñaari milliards te compte boppam du mat téeméeri million neewoon na sëñu ko kon kooku ku am kilifa gu mel noonu daray àdduna itteelu ko danay netti ne Cheikh Mahmoudou Bachir mas na ko wax ne ko man de li ma jaaxal ki ma jaaxal mooy mun taxa ndax moom daa bëggul dara nee na ma ne ko bëgg naa dara li ma bëgg a jafe kon demee lii ko suñu borom defal tey may xol yëpp maase ci nongul ko xol yëpp maase yéen ko jàmm pëstéefam ak doomam ci suñu tubaab moo ko may kon ñu ko ñaan mu yàgg fi te di leen jot li kàddu yu néew yu bàyyi ko ci moom ak i cant ak ngërëm ci liweesu lépp ndax xam na ne taalibe Serigne Touba yi dañ leen di sant rek waaye ñoom Serigne Touba leen di tax di jëf payuk Serigne Touba yi lañ ciy séentu te daañu ci dajeeg moom ndax sëñ bi ko digle mu joxe ndigal nag wax ma ne naa jot li bokk taalibe yëpp bi ma ko wax sax daf fekk ma nekk ci biiru yoon. jëmoon làmbaay waaye bii ci guddi mu woowaat ma soññaan ma ci am lu ma ci yeesalaat wax ma ne naa woo Cheikh Mahmoudou Xabaan monsieur Fallou ndax Serigne Touba lépp lu ñu koy defal ak alxuraan ci war a jiitu ndax alxuraan ni ko Serigne bi tuddee mooy wi'a wi'a wi'aul xayri lu ñuy defal Serigne Touba rek alxuraan lañ ko war a tàmbalee yàlla def na nag taxawaay boobu ci nekk ci Serigne bi féetee ko teg ko ci loxoom. mu wuutu ci magam ju tedd ja sëriñ Mamour nga xam ne kenn du ko fàtte ndax taxawaayam ak njàmbaaram ak bëggam sëriñ Touba yaa na suñu borom dolli ay leeram waaye moom mii itam nag di Cheikh Mouhoudou Xabaan mattale na liñ li sëñ bi doon séntu ci ba weesu ko kon minal mu'minina rijaalun sadaqu maa haadullaahi alayhi minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantasir yàlla na yàgg nekk ci ay loxoom mu ànd kook ñi ko seqal ñëpp ndax sëriñ bi kat lam ma wax mooy ñi ko seq Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Mouhamadou Fadel ak Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëriñ Abibou ak sëriñ Xaari Jaxate na nga wax suñu xabaar mu jokkoo ak ñoom yégal leen ko ñu ànd ko taxawee ko wax ma day danaa sëriñ xam Mbàkke mi sëriñ Soyibu moom itam ñu koy ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla na ko suñu borom dëgëral kàttanal ko ndax jàmbaar la ndax li sëñ bi jaxate doon wax Serigne Touba di ko tàgg di ko wax ne ko ku du man ak yow yam day gindi bis jëfu yiw dellooti ci bon bonam yow yow daal sax ci lu baax waaye ba ma ko jot barki démb dama ko ne yow di am nga taw feex ndax ñooñu ñëpp kat dañuy laal di daw rek waaye yow dangaa dëkk ci sëñ bi xasida yi loolu nag taxawaay la bu rafet boo xam ne ñëpp di ci yóbbaale ndax koo xam ne ba ba ma ko ba ma koy xam ci kër suñu son bi nga xam ne boo tàmbali ko taxawal daara yi guddi ajjuma yii ba mu koy def boobu mag ci biir kër suñu son bi ci biir daara ja noonu laa xam ba na ngeen mosuma xam lu sopp ko ci moom kon bu jaaw bi rek ci yokk waaye xawma bëgg gi lu baax ak noonu ngee sàkku ci lu baax mësa sopp ko ci moom daawee taxawoon na ci taxawaay bu rafet kon moom itam sëriñ bi koy sant ndax xam na taxawaayam jëfi barki démbam ji rek firnde la ji sëriñ ñu ànd ko nag ak waa xiisu tarxiya ndax sëñ yuusu moom it sëñ bi ma tudd turam ne naa ko wax ne ko na taxawu lépp ba wax ma lim ci tàmbulee joxe na ci fukki nag ak fukki gileem ne da koy tàmbulee waaye lépp luñ soxla dana ko def waaye xam naa taalibe yi moom duñ ci bàyyi sëñ bi di ko weesu ndax walaayka yushaadoon fil xayraat lay doon mu ne nañ ko teg ci loxol sëñ Yuusu ñaa ko togg yeeg ñam yëpp na doy nañ fexe ba ñëpp daal bu ñu àggee ci altine ja ñu daje ci pénc mi ñii di jàng alxuraan ñii di jàng xasida njàngum durus ak njàngum yëkkati ak laa zikrullah zikrullah bi nag ndigal la def ak segut waaye danaa ko leeral ndax daa am lu ma ci siñ bi sant te laa tafaloo shay'an bi xayri isni fal isnu shartun fii xaboori shayni waaye nañ xam ne zikrullahi mi ngi ci biir kon ñett yooyu ni mu ko diggalee sëriñ Mbàkke yu fay ca Ndakaaru moo koy taxawal ñi nga xam ne féete nañ foofa te mënuñoo ñëw am nañ digalum defe ko ci Masaalikul Jinaan ak mboolem ci réew mi rek fu ñu ko mën a def lim ci jublu nag mooy toroxlu dellu ci suñ tellu ne ñëpp dellu ci seen borom toroxlu tuubal yàlla suñ boroom jéggulu ko te ñaan ko ne ko eh, suñ kilifa gu tëdd ga daa wax Serigne Saliou xéewalu yu bari yi nga xam duyu ko dara lu may ko ko ñaan sëriñ bi ne ñëpp delluwaat ci seen borom tuub te sàkk sarax ndax suñ borom kat wax na ci alxuraan yaa xaw yi istaxfiru rabbukum summa tuuba ilayhi lam ca teg mooy yursili sama aleykum idraan wa yesidkum quwatan ila quwatikum kon nañ gëm ne buñ ko defee rek danañ ca dajeeg tawféex ñaan ndoxum jàmm wàcc ci réew mi te ndox mi itam yan doon ndoxum jàmm la Cheikh Mamadou Faye daa wax naan bañ a céng bañ a coos te Serigne bi daa wax ne ndox de lu lu lu mu yàq rek li muy defar ko ëpp kon loolu itam nañ ko xam te xam ne Serigne Touba kat ku jubóog boroomam la ndax. ba tey baaw naan istisqa yàgg na fi waaye Serigne Touba kat fu mu mës a ñëw jàmbate ko ko ci njaarim buñ ko ko waxee balaa ndaw laa dëpp dana fekk dana fekk dana fekk mu tooy te loolu xam ngeen ne ra bàyyi na ko fi Cheikh Mamadou Farid lim ci def kenn xamul nu mu doon njabootu Serigne Touba gi noonu kon na ci ñëpp góorlu te ci Pastef bu ñu àggee ci altine ja sëriñ bi wax na ne incha allah moom ci boppam mooy teewlu boppam ci biir kër Sëriñ Tuubaa gi fasal ñëpp eh, li nga xam ne yéene na ko jullit yi yéene na ko taalibe boo ko defee ñun ñëpp itam ñu maasee jëfandikoo la borom Daaru Muxti daa wax bu dee Sëriñ Tuubaa masaan digal nee bu ngeen noppee ngeen fas li ngeen bëgg ñu mu ne ko mbàkke nañ la bàyyi nga fasal ñu ndax ñun buñ fasee dana am luñ fàtte waaye boo fasee rek lépp dana dugg ci biir kon ñooy te ñëpp maase teewul rek bàyyi sëñ bi fasal boppam defe ko ak sellal bañ cee dugal puukare bañ cee dugal adduna te teewlu rek seen digg seen suñ suñ borom teewalu Sëriñ Tuubaa mi tax ñu gën te xam ne xaside yi attan na lépp ndax Cheikh Abdou Khadre Mbacké daana wax ne am na ci xaside yoo xam ne daa mel ne kënoog guñ sox guñ sox ba tiire rek des ci xaside yi àttan na lépp alxuraan xam ngeen ne ko Serigne Touba fonke waxoon na ne kaamit bii nga xam ne digle woon noo ko ca gànnaar nga xam ne ba léegi ni ñu ngi koy def nee na buñ xëyoon suba ba ngoon te jànguñ ko asamaan si suuf dana jaxasoo kon na ñëpp seenu xel la te góor góorgóorlu ci bu baax te li sëriñ bi wax rek la mu waxoon daaw daa waxoon ne ñaan rek ñu ci war la ci ñu bàyyi ko ci loxo suñu borom ndax suñu borom nag mën nga ko ñaan mu may la ci baaxam wala mu soppil la ko watteel la ko leneen lu gën moo tax li sëriñ Tuubaa waxoon rek yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata faridna wa sabru nañ nañ toox lu ñaan te bàyyi lépp ci loxom te xam ne yàlla suñu borom kat la kilifa gu baax daa wax yàlla kenn du ko poñe dangay ñaan rek te dellu ci moom kon na ci ñëpp am positif mboolem taalibe yi itam nag xam nga ne dana yaatu ku ci mën a togg ay ñam lépp ci sarax la ku mën a dimbalee koo tane lépp bokk na ci li nga xam ne mën na indi jàmm kon sëriñ bi ne mi ngi ñaan yàlla ndox mu barkeel ndoxum jàmm ndoxum xéewal te wàcc jàmm ci réew mi wàcc jàmm ci àdduna sépp ndax xam ngeen ne Serigne Touba kat Cheikh Ibrahima Fati waxoon na ne ci Cheikh Mamadou Moustapha la ko waxoon woon na ku fi nekk Serigne Touba bu ñaanee ñu may ko bu ti bu tunee bu tinee ñu tini ko te nag ne daaw kat ba Serigne bi woote bis bii ñëpp a jaaxle woon ndax doomu aadama moom daa am na ko yàlla bindee li xelam gis la mën a wax te moom dafa am basiiru ndax day gis luñ gisut ñëpp a jaaxle woon mu daane màggat gi jub si ne waaye luñ ci góobe gar ko jàngoro ji daanaka kenn déggatu ko ñu àggaat ci dem màggal gi jàll yëf yi wàcc màggal gi jàll yëf yi yëkkati ko waat mu wataat bisu bisu zikrullahi jagleel ko Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra fa ci la cële yi tàggoo ba nag ni kon loolu xar baax dëgg xar xul aada dëgg la nit ñi nag àdduna bindoo noonu waxaalu lan nu'mina laka ni tufajjira lanaa mina al-ardi yanbu'an ak fasqit alayna kisfan mina samaa'i kon naka jekk doomu aadama moo bindoo noonu te lu lu lu mu gis itam bu ñaanee suñ borom bu tiitee day dellu ci yàlla waaye suñ borom ni mu ko waxee ci alxuraan rek saa su bu ma la muccalee ci mbir ma rek nga delluwaay so sa borom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan itam lii ñuy bëgg a tàmbali tey nga xam ne dafa tombe muy liggéey Serigne Touba bii di màggal Touba gi ñaan ñu dugg ci jàmm te day see toofeex day see ngërëmu Serigne Touba te la duggee ci rek la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax liggéeyal Serigne Touba la ci am solo mooy façon gi waaye na muy fexe ba am moom nekku ci suñu loxo ci loxoom la ne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kay jërëjëf ñoo dégg kàddu yooyu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadr mu jottali ñu ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides kon muy bis bi nga xam ne mooy altine ji jëm ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski war a dëppoo ba cinq ci weeru juillet atum 2022 mu jëm ci bisub alxuraan ak xasida boo xamante ni du mun Mountakha digle na fépp foo xamante ni kër Serigne Touba fa ñu dundal ko fa kon muy bis bi nga xam ne mooy tëj li ñu tàmbali woon ci njàng mi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ba keroog altine ji di dellu soir war a doon ñaar fukki fan ak juróom muy bisub alxuraan ak bisub xasida boo xamante ni sëriñ bi digle na ko ñu def ko fépp foo xamante ni kër sëriñ tubaa am na fa kon nag ñuy ñaan yegg ci ak jàmm jëfe ko ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle te lim ci fas yéene ko ci dongo yi ak bokki jullit yëpp suñu borom defal ko ci lu kawe njortam barke Cheikhul Khadim sukri li rabbil karim min kaana sakara wa artaji min fi daarayni abkara sukri li rabbil karim min kaana sakara wa artaji min fi daarayni abkara katabtu sukuran lahu ma qad rajawtu bihi kawni sa'ijan wa sakaran wa dakara wajjahtu wajhiya fi shahri nabi sanadi lil akrami rafi'il wahhabi sakara رجوت منه تعا لا سكر وعمى لي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجعت يا موى زلات جملة أني وتذكيره لدار كفارا إني أخاتبه في البر مقتريبا ولم يذل جلقه هارا وجبارا فجاتني ربي بالآلاء أبولياء أعود للبرور رضو لي كل من بارا على النبي سلبي تسليمي بالكرامة